mardi 14 septembre 2021 dañuy wax yéen ci yëglikaay suñu lamb la ñuy xëy tey dooreete ko yëglikaay ba nag tey xëta mu njëkk moom la mu xëy tey ñëw ca mooy la xam ne waxtaane woon na ko démb muy ay mbir yoo xam ne mu ngi xaar CNG tey nag mu jukki ca benn mbir maanaam ay gants yoo xam ne daal ñu ngi koy rumandaat ci suuf ñu ne mbër yi est-ce que mënuñu koo sol di ko xel di bëréwaale mel ni ki nag wax jooja moom ña nga xam ne ñooy ay acteurs nekk ci làmb ji am na ca ñoo xam ne nii moom bëgguñoo dégg jooju wax ak ay nopp parce que nag jàpp nañ ne loolu bu amee maanaam lamb ja danañ ko soppi te sunu cosaan dana nu wéer maanaam jël ay mbër solal ko ay gaa ne ko kaay ka nga xam ne nii daal moom moo di du jànjeek ko président des amateurs moom nee loolu àndul ak la xam ne nii moom moo di lambi réew mi rawatina lambi dóor Bécaye Mbaye ma ngeen xam ci DSTV tamit wax na ne loolu bis bis su ko defee daal maanaam nee na nee na bu keroogee moom lamb ja rey nañ ko ba mu dee loolu mooy waxi Bécaye parce que daa jàpp ne loolu moom am xel sax wuru koo di ko xalaat zàlloo tamit nekkoon fi ancien mbër moom tamit daal jàpp na ne daal maanaam li nga xam ne nii daal moom moo gën a normal te itam nekk la xel nangu daal mooy bëre te doo sol ay gants nee na daal gants moom doy na ca salle entraînement yaag yu mel ni ki noonu waaye géew ba moom nee na lañ fa daan am daal moom daal moo fa war di am ca sunu cosaan loolu mooy gis-gisu sàlloo bekaay mbay dut jaan jeg ko mu mel ni ki daal mbir moom a kon coow la mu nga ca ne gadd wala wax ja keneen koo xam ne ni moom yëglikaay bi tey dafa xëy toppal ñu ko muy guy gi ma nga xam ne moo nekk école di Mor Fadam yëg yëglikaay ba ñëw na ci jat ba ak la nga xam ne nii daal moom moo doon simpem ba nga xam ne tàmmoon na koo def la nga xam ne moo di ay adversaire ak itam mbirum sax ay protéines yoo xam ne daal doon nañ ko ko jiñ yoo xam ne jëloon na ca wala mu jël ca ba moo di leen koy jafe-jafe yëglikaay xëy na tey toppal ñu guy gi koo xam ne ancien chauffeur la woon tamit maanaam ci wàllum transport en tey nag mu nekk mbër grâce à nga xam ne ni moo doon royu kaayam ba di saa kajoor numéro 2 mel ni ki nag kasem bu njëkk moom guy gi daal 60 000 francs CFA yëglikaay bi na nee na daal lawoon moom la ca encaissé woon mel ni ki nag bés boobu le 22 janvier la woon daal bés la woon boo xam ne bu rëy la woon ci moom kaay ba moo xëy tey dikkal ñu ci lu mel ni ki noonu mel ni ki doon daal guy gi fa mu jaar yëglikaay ba ñëw na tey toppal ñu ko keneen koo xam ne ni tamit ñëw na tey yëglikaay ba daal ko ci rubrique Leewtoo muy ka nga xam ne ni moo di Lagros bu Faas yëglikaay ba dalal na ko yëglikaay ba ba mu ko dalalee nag Lagros Lagros daal nan li ko gën a marqué ci carrière am mooy combat bi nga xam ne bëre na ko ak ka nga xam ne moom moo di Modou Anta bu Thiès ña nga xam ne ni moom sa saison ren boo bëggee dégg-dëgg demul cëng dikkul mbay laar mooy ña nga xam ne nii ñoo di waa Kër saar mbooloo yëglikaay bi nag victoire sept défaite daal la ñu dajale yëglikaay bi moo xëy tey ñëw de dalal leen wan ñu la nga xam ne moom la ñu am mel ni ki nag ka nga xam ne nii moom moo di dem ba Diop daal mu nga xëy tey di wax ca lu mel ni ki noona nga xam ne moom la ñu am ci ay résultats waaye nag nee ñoom daal li ñu bëgg te yéene ko daal nee na boo bëggee dégg dëgg daal suñu lamb d'or bi moom nee na fi mu nekk ni moom la ñu teg seen bët te itam daal bëgg nañ at yi di ñëw ñu ko loolu mooy bëgg-bëggam ginnaaw ba nga xamee ne am nañu boobu résultat kenn koo xam ne moom ay résultat lay def muy ka nga xam ne moo di Bamba Mbuub ca la nga xam ne moom lay defar mbëli ya mu mel ni ki nag formation leen di defal daal lu jëm ci wàllum ay garde rapproché dina utal ay liggéey daa mel ni ki nag mu nga continuer di ko def ba tey ndax démb ne nañ ñu daal ca stade Léopold Sédar Senghor lu toll ci juróom-benn fukki mbër daal dajale woon na leen fa ngir nag ñu commencé la nga xam ne moo di ab stage yëglikaay bi moo xëy tey ñëw di ko dalal wala boog wan ñu lu mel ni ki noona yemu ca delloo nga nga xam ne tamit delloo na ko mbay gi njukkal ñoom waa FICE daal mel ni ki loola neex na ay mbokkam rawatina ña nga xam ne ni ñoom la bokkal ci wàllum deret keneen koo xam ne nii moom daal la mu bëgg maanaam mooy daal monde daal bi daal la bëgg a dajale ci benn tournoi boo xam ne football lay doon muy Fatma Dia ma ngeen xam mu nekk fa nga xam ne nii moom moo di ca Kewel info yëglikaay bi xëy na tey dikkal ñu ca moom ak tournoi ba nga xam ne daal moom la bëgg a mu jëm ci wàllum ña nga xam ne ñoom ñooy yëngatu ci làmb jëm tous ya moom buñ fa demee ñu ngi xam ne daal Moussa Ndoye maanaam daal mu yaraax dem na fa nga xam ne nii moom moo di ca France kenn koo xam ne mu ngi ca tuuse yëglikaay ba wan ñu ko muy bombardier bombardier daal yëglikaay bi ne boo bëggee dégg dëgg daal donte aj nañu ko maam ak Balla gay waaye taxul mu nopp lu wala mu jéem a sax xalaata toog mu nga daal saa yu xëyee wala sa bu gontee daal mu nga ca place saliba di entraîner à partir de 19 heures daal mu nga fa ak ay problème di contact maanaam daal di wut doole wala boog di yokk doolem yëgle kaay baa nu ko xamal ca tuuse kenn koo xam ne ni moom am na lu muy wër mooy parisien bu Fass la muy wër mooy digganteem ak Cheikh Niang la jàpp daal bii combat mën su ko bañ a tëgg ndax daa jàpp ne daal moom Cheikh Niang daal fi mu nekk nii la tëgg ay bëtam soxla ko moom ma nga xam ne moo di parisien ma nekk fa nga xam ne moo di ca écurie kenn koo xam ne ni moom bu ñu demee fa nga xam ne moo di ca Equivox fa lañ koy fekk muy Kaw Gourdin mel ni ki nag ñëw na ci combat ba nga xam ne moo ko war a booleeg ka nga xam ne moo di caatu Daawuda Fall Kaw Gourdin nag moom daa jàpp ne fa mu jaar xale ba jaaragu fa moo tax mu jàpp ne daal du moromam yemu ca diggante ak idaali ñun tamit ak combat ba la ca am ak jag sama ko tëgg loolu lépp ñëw na ca mel ni ki nag wax jooja mu nga fa nga xam ne moo di ca Equivox TV jërë jëf kon dégg ngeen yëglekaay yi sunu làmb tey Equivox TV loolu lañ ñu xëy tey andil ñu ko ah ñuy jéglu nag ci yeneen yëglekaay yi nga xam ne déggu ngeen leen rawatina les arènes te man nag laaj te naa wax dëgg yàlla xëy naa wut ko mais bon dafa am retard xam naa ci côté imprimerie ba loolu la ñu kilifa ya wax waa des fois xam nga liggéey bi am retard te bu retardé ba bët set presque boo ko génnee te dootul am njariñ parce que xam nga day xaw a yéeme quoi mais xam naa ne suba incha allah rabbi di ngeen gisaat les arènes ñu ciy profité di nuyu équipe bu les arènes yëpp rawatina kilifa ga di Abou Ndour ak ñam ko seqal ñëpp ñoom Aïssa Faye ak ñi fay xëy di liggéey ñëpp daal maa ngi leen di béggee sunu làmb moom yegsi na fi waaw moom bi mu ñëwee nag hmm, xëtam mu njëkk tey gis ngeen la mu ñu xëy wan Modou Lo ngeen gis ak Balla Gaye numéro ku ci nag takk ay gants yooyu gants ñu takk nag ku leen gis nañ taxawee xam ne ci entraînement lañ ne wala ci open press waaye nekkuñu fi nga xam ne mu ci géew bi war a bëree yaa ngi dégg kon defe naa loolu mooy li ngeen gis ci ay image bu ngeen ko gisee image yi nag gis ngeen kaa xam ne moo di Doudou Diagne Diecko gis ngeen Bécaye mbay gis ngeen Zallo ñoom ñaar ñu ngay wax ñoom ñett ñu ngay wax li waral wax ji nag mooy dañ fi avancé wàllum bëre ak ay gants maanaam mbëri bu ñuy bëre léegi ci géew bi war bi waree suuf la ñu sol ay gants mais ni ki wax jooju nag bi mu jógee am na ñoo xam ne bàyyiwuñu mu seddan ah. ndax Doudou Diagne Diecko président des amateurs wax na ca ne na làmb bëri bi ñuy def àndul ak sol ay gants bekkaay mbay nee na loolu bu ko defee mooy rey nañu làmb zalloo nee na loolu maanaam sax waare su koo xalaat mu mel ni kon daal mbir moomu daa mel ni jooju wax xaw ma fu mu jógee de waaye xalaat naa ne daal du bëri ah ñu ci ànd mbër yaa ngay bëree sol nañu ay gants sam waaye suñ cosaan la ñu am di ko di ko def buñ ko nan ko sàmm yaa ngi dégg am na ci yoo xam ne mënees na koo améliorer xam nga protestant loolu d'accord amul benn problème loolu nangu nañ ko mais ay gants ah làmb depuis ñaata at muy am booba sama am waxuma sax mille neuf cent ci ay làmb ba muy am ba muy am Sénégal ak léegi ñaata temps la ñaata ñaata ah kon bu ñu ñëw ba moment bi ñu ñuy gëm loolu loo xam ni xam nga du suñu ay yëf des fois nag dama naan dafay am lu ñuy sonal ñun mooy complexé gis nga complexé moo gën a bon su doomu aadama bu ñu nangu nekk ay complexé li nga xam ne nii lu jóge bitim réew te méngoo ak sunu cosaani réew mu ngi li nga xam ne mën na noo amal njëriñ mën noo yokk mën nañ ko adapté waaye li nga xam tamit moom la ñu moom te mu leer nañu lii baax na nañu njëriñ loolu nañ ko sàmm nañu fexe ba bu nu ko kenn yàqal yaa ngi dégg man Babacar day dama par personnel ànduma ci ñu naan bom Bombardier ak Balla Gaye ngay liwtoo sol nañu ay gants keroog sar ma lamb dee na làmb dafa am lu ci am làmb dafa am taal jum lamb dafa am yenu ndaa toj dafa gi daan yenu ay njaq daw ak waaxu waaxu waaxu toj njaq bi daw ah yaa ngi dégg yooyu c'est de c'est yooyu yooyu kenn du ko yooyu kenn du ko sotte koo soow ti say sengoor dal di tuus ah ñu tëgal la nga tuus yaa ngi dégg maa nga de takk ay laaram wàcc dal di njuug hmm? yaxi jób yëkki ni ku ci ne ak la ngay indi parce que cosaan mooy feeñ kon cosaan boobu nag moom la moom la làmba am cosaan boobu nag buñ nañu fexee fexee fexe ba buñ ko dindi mais bés buñ ko dindee mooy làmb moom déjà yàqu na waaw bu ñu dindee cosaan boobu ci am mooy yàqu na parce que làmb dafa nekk sport bu nga xam ne sunum réew la mu dajale moo bëri sport dafa ne ci biir làmb culture ne ci maanaam aada ak cosaanu réew mi am na ñoo xam ne aada ak cosaanu réew mi moo leen fay gën a indi souvent rawatina gan yi jógee à l'étranger des fois nga gis ay ay ay ay nasaraan jógee à l'étranger ñëw si làmb dagg ay billet parce que li leen di indi mooy li ñuy gis ci ci ci ci ci ci terrain bi wala ci stade bi loolu dafay rafet image yooyu kon ay wàllum gaamu man baa Babacar wax dëgg yàlla bu doon vote la dama naan sama xob moom non lay voté ci ay gants yooyu mbër di sol di bëri waaw te defe naa itam du jànjee ko wax na ko Bekaay Mbay wax na ko Zallo wax na ko te ñi ñett ñëpp ku ci ne ikonu làmb nga ca côté ba nga nekk ndax du jànjeeku ku ko xam-xam ko les amateurs yàgg na mu yàgg di sonn ci làmb di ko ba fi mu toll tey Bécaye Mbaye wàllum reportage sama classe gi tey bu ñu nekkee ay report ay reporteru làmb ga grâce à père Bécaye parce que bi muy def reportage su làmb ñun moom la ñu jàpp jamonoom ndax bu ñu demee en arrière ay alaaji Mansour mbay ay Mazib Sène ñooñu ak ay alaaji Stapha Ndiaye yal na ko yàlla yërëm ñooñu bi ñuy reporté làmb ñun boobu eh, xamuñu sax làmb boobu ñun ay xale yu tuuti lañ mais père Bécaye wax vraiment ci Walfadjri ba ni mu ñëwee 2STV ah mu révolutionné wàllum reportage su làmb indi ci tuus boo xam ne nii mooy loolu kon defe naa kooku itam am na kaddu ci làmb bu ci waxee war nañ koo déglu te àndut ci lu mel noonu Zallo yaakaar naa ne ku ne xam na ne làmb ñi ko man Babacar boog dama naan mbër mu ko dàq bëre est-ce que am na ci làmb ji yaakaaruma ko yaa ngi dégg wane na boppam fu ci drapeau chef de ak ay équipe nationale fu ne kon defe naa kooku itam am na kàddoom ci làmb te defe naa dina bëri tey boo doxoon amateur yi seen seen kàddu nañ leen loolu ànduñu ci ay mbërë kii gant yooyu nañu bàyyi bu ñu entraîné kay takk ay gant def boxe ci salle yeeg yooyu mais biir làmb ja nag ñu def yëf yi cosaan lu moom guy gi yëglikaay bi xëy na tey toppal ñu ko ci côté bi nga xam ne ni ah mooy daal ay taxawaayam mi mu ni mu ñëwee si yooyu jat baak simp baak protéine yamu fi kiwoon nag yooyu yëpp gis ngeen yëglikaay bi ñëw na tey ak li nga xam ne ni tamit jaar na ci muy wàllum transport en commun bi nekk na fi apprenti ci car transport yi ba xëy tey dugg ci làmb grâce à royukaayam bi nga xam ne mooy saakajoor noonu lañ ko yëglikaay bi waxee saakajoor numéro 2 waaw moo lay ne kon àddinaa ngi noonu ndax guy gi moom xam nga daa moo xam ne maanaam moom ku spécial la ci lam parce que guy gi jat balaa bi di suuf le nga jat ci guy gi lañ ko gisee simpi daan nañ ko woyal guy gi jàppal ba mu dëgër nga simpi nga sànni parce que loolu lañ ko gisoon mu koy bëri bu jàppee adversaire am balaa am li ko neex da koy yëkkati ba laalatul suuf mu dóor ci suuf yaa ngi dégg yooyu yëpp dañ ko daan gis si moom wàllum protéine bi ku ne gisoon na fi ay moment mu fi toll woon ba nit ñi naan est-ce guy gi jëlul nangam nangam waaw yooyu yëpp am na fi waaye kii li tax mu dugg ci làmb yaakaar naa ne wax na ko waxati ko mooy Sa Kajoor numéro 2 te kere bi ma koy jëlaat defe naa leeralaat na ko ndax Sa Kajoor defe naa ne daq ko bëre amul xëy na nag mbir mu ne ak fa fa yàlla yemale sa sens ñu koy nuyu di ko ziar moom Sa Cadior numéro 2 guy gi kaseem bu njëkk ne nañ 60 000 francs CFA la vingt hmm? le 22 janvier jour de gloire mel ni bés boobu 22 janvier bés bu réyoon la ci moom waaw ndax xam nga koo xam ne nii moom bu xëyee day lijjanti 1000 wala 2000 mu koy të ñu fay ko 60 000 francs ko balde day rëy ci moom mais ana guy googu tey mu ngi bokk ci mbër yi nga xam ne tey ci mbër yi gën a seer ci làmb ji di fay ko ay millions macha allah moo lay wan ne loo gëm rek la Omar Ndiaye Xuslumaan wayoon loo gëm loo gëm bu yàggee mu gëm loola kon loolu mooy àddina loo loo nekkati rek gëm ko ah, Bamba Mbuub tamit ak waa fis seen formation ah lutteurs yi ci wàllum garde rapproché mu ni ba tey ñu nga ca rek di liggéey gis ngeen ci kaw noonu yëglikaay bi wan ñu ko 60 lutteurs yoo xam ne antamewaat nañ bi ah stade Léopold Sédar Senghor yëglikaay wan ñu ko noonu mel ni kon daal liggéey ba ah ren boo xoolee dañoo témboo daal ci wàllum ndam ak victoire waaye nag yàgguñoo judd mel nañ liggéey rek parce que Kër Masar Mboro tamit ay xale nga fa yoo xam ne ñu ngi wane seen bopp ka leen jiite mu ngi wax daal la mu ne na ñoom hmm, muy ki nga xam ne nii moom moo di euh, Pape Demba Pape Demba Diop dirigeant la foofu ci Kër Masar Mboro moom daal ne li ñu bëgg mooy di si quelque temps sunu lamb d'or bi gars yi di gagné ñoom ñu gagné ko loolu la ñu bëgg loolu nag li koy may mooy liggéey waaw sunu consoeur Fatma Dia moom tamit ñu koy nuyu di ko ziar bu Kewel Info ak li nga xam ne moom lay initier muy tournoi boo xam ne daal waa làmb lay dajale tournoi football waaw loolu yëpp mu ngi ci di ko initier mel ni kon loolu tamit lu am am solo la waa Fatma Dia moom mooy initier loolu ñu koy nuyu di nuyu waa Kewel Info yépp ñoom nen ne suma rakk ji ne ah saf xorob macha allah borom mbalaxe maa ngi koy bu baax baax baax baax mais Fatma tam di ko ziar di nuyu ay frère yëpp ñoom Amadia ah xam nga ñoom ñëpp maa ngi di béggee waaw toute la famille ja boobu nekk yëmbal di nuyu ñëpp ñi nga xam ne tamit ñu ngi ñu doon suivre ci Equivox TV bu ngeen fa demee dingeen ngeen fa fekk vidéo Kaw Gourdin am na lu mu leer ci diggante Idaly Gningue ak moom ak seen combat bu nga xam ne am na ay wax mais di ci am solo rek mooy ah, lu mu mën a doon rek nañ ko waxtaan te fexe koo rafetal te teg ko ci yoon bu ñu ko defee rek pour man euh, bu dëgg amee rek pour pour man li ci des moom dootul metti quoi waaw di wax ka ni loolu lañ fi loolu moo fi dikkoon tey di ñaanal ñëpp jàmm di balu ñëpp wax ka Sénégal yàlla na fi yàlla def jàmm maa ngi ko doon wax di ko waxaat 18 safar lañ jëm Hmm. commencé nañ nag ba premier safar bi commencé gis nañ gaa ñi ñu ngi terle di joxe ay bernde loolu nag mooy li sëriñ bi bëgg maanaam ñu santale ko yàlla waaw santale ga yàlla nag génnul ndigal la nga xam ne nii maanaam moom la sëriñ Muntaxa joxe te ndigal la mu ngi ko jële fan ci ay juróom ya nga xam ne ñoo ko jiitu nekk xalifa ak ay magam waaye itam jóge ci maamam ja nga xam ne nii buñ ne tarixatul muridiya moom la muy Cheikh Ahmadou Bamba xaadimu rasul te loolu itam jóge jëliwu ko fenn fudul ci ki gën nit ñi ñëpp muy Moustapha sallallahu alayhi wa sallam muy Muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kon defe naa daal liggéeyal Serigne Touba du génn yàlla yonant ba ak sunna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam loolu kese du ko paase bokk na ca nag liggéeyal ko fonk say mbokk da caa bokk fonk say dëkkandoo di def lu baax di ko wax koo mën a teral teral ko koo tane nga dimbali ko te nangoo jaamu yàlla te it nangoo liggéey waaw ndax Cheikh Ibra daan na wax ne mu ngay xoola ji ba fa muy fekke ji yàlla defa ay wax kese bàyyi jëf kon jëf rek katakku jëf nag yàlla na doon jëf ju baax ja kon loolu moo am 18 safar yàlla nañ ko fekke bés ba màggal ko dem ci tuubaa ci jàmm ñëw si jàmm ah ñi demul tamit te màggale ko feneen yàlla na yàlla def tamit ñun ñëpp rek ñu fekk ko te tal ko parce que loolu moo am Sénégal buñ ca jógee jublu guddi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam muy gàmm dañu ciy profité di nuyu xaalif général yi ne Sénégal di leen ñaanal jàmm di wax que ni yàlla na Sénégal gën a am jàmm barke yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waaye na àddina bi yëpp gën a am jàmm Balde di la remercier yow mi nekkoon tey ci caméra bi ah di la ñaanal jàmm ak montage bi di nuyu képp koo xam ne daal yaa ngi ñuy topp à travers Equivox TV mais soxna Asi noo ak sot du ma ko fàtte sama naar bi maa ngi lay bëgg soxna Asi Diagne bu xarañ loo yàlla sa jàmm yàgg yàlla sa jàmm yàgg Asi kooku Balde sama soppe sama lépp la Asi Diagne waaw moom nit ku baax la macha allah te nitu dégg